dalu rafet lu seen ànd ak programme Leral TV mbokk yi tey ci àllarba bi waxoon naa leen ko Ndogo Sarr moom la ñuy am moom mi nga xam ne moom mooy euh, secrétaire général bu euh, CUSEMS euh, di kon syndicat nekk ci moyen secondaire bi xam ngeen ne démb dañoo dóor ab grève boobu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci daal di waxtaanee journée morte bi nga xamante ne def nañ ko ni ki démb waaye tamit daañu waxtaan yeneen ponk yu laal li nga xam moom mooy njàng bi ak njàngale bi ci biir réew bu Sénégal Ndongo Sarr maa ngi lay nuyu te di la ziar rafetlu teewaay bi ci maa ngi lay fay di rafetlu invitation bi di profito de cette antenne pour euh, nuyu seen ay téléspectateurs ak télé téléspectatrices. Hmm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ci kër gi. donc di fi yëngatu di jagleel nag nuyoo bu particulier jàngalekat yëpp rawatina suñu ay militants. des militantes suñu ay sympathisantes et sympathisants. macha allah 12 minutes chrono donc euh, c'est parti euh, pour 12 minutes encore une fois ci lu jëm ci wàllum actualité. dañ koy tàmbalee ci grève bi nga xamante ne euh, Gorgui Sarr def nañ def ngeen ko ni kii démb concrètement lan la ñu mën a jàpp ci grève bi est-ce que le mot d'ordre a été respecté. waaw le mot d'ordre a été largement suivi au-delà même de nos espérances waaw ndax nag euh, jàngalekat yi euh, dañu taxaw temm pour jàppale ñu ci xeex bi nga xam ni moom la ñu sumb ndax nag ñu ñu ko seqal dañu am taxawaay boo xam ni bii xëy na peut-être sax booy xool. moom moo leen gën a tax ñu gën a taxawaat pour défendre les intérêts des travailleurs mais défendre également les intérêts de l'école. dafa mel ni yaa ngi wax euh, ñi nga ñi ñi ko sekkal bien entendu boo waxee loolu xel day dem ci ministère bi ngeen wàllum éducation ak le communiqué bi nga xamante ne génn nañu ko gannaaw ba ngeen jëlee ndogal pour def journée morte. Mm. concrètement euh, est-ce que jàpp ngeen ne loolu ay menaces la ci li nga xamante moom moo jëm ci ñi yëngu ci wàllum jàng ak jàngale bi. waaw mais ay ay menaces la naturellement. ku liir communiqué bi. Hmm. tonalité bi rek déjà. et comment est-ce que vous avez pris ces menaces. mais daf ñu reeloo ba pare nag ñu am ci kersa ndax nag ñun dañ jàpp ni eh, ministère de l'éducation nationale moom moo ñu njaboote ñun ñëpp njaboot nag yaakaar naa sooy wax ak ñoom am na noo xam ni noonu nga war a waxee donc ak ñoom et yaakaaruñ ni ni mu waxee ñun ni noonu la waroon waxee ak ñun mais. Euh, ñun lu ñu bëgg rek mooy que tutelle bi xam ni loolu ñun yëngaluñu xam nga kuy jéem a xupp amoo koy xupp wala di ko jéem a tiital ku dul jàngalekat c'est-à-dire que ni xëy na peut-être da nga trompé wu d'interlocuteur loolu mooy benn ñaareel bi ci communiqué bi dañ ciy wax ni en fait ñun dañuy jéem a déstabiliser école bi. parce que préavis bi ngeen war a teg tegoo leen ko loolu la ñu wax. non xam nga loolu ci boppam ki koy wax c'est sans doute parce que euh, deful benn effort. pour xam lu xew ñun dañu déposer suñu préavis depuis daaw préavis soo koy déposer da ngay déposer préavis si biir préavis da nga ciy bind ni kat man diir bi ba diir bi su dee mois bi nga xam ne dañ ma wax ni ma naa ko observé te mënuma ci grève état bi woowuma ñu waxtaan ba trouver solution diir boobu man dinaa am latitude yëngu yëngal pour ñu déglu ma ba saafara li nga xam ne lii man moom lay ñaxtu loolu nag ñun dañ ko def depuis daaw suñu ñooñ ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci xeex bi muy waa SAEMS dañ ko def maintenant xam naa ñoom xëy na peut-être li leen réeral mooy conférence de presse bi ñu def dañu ni dañuy déposer benn préavis commun ñu yaakaar ni donc ñun dañu amul préavis ñun dañu am préavis buy courir maintenant dañuy déposer beneen préavis pour que yi boobu nga xam ni dañ ko déposer woon su dee dafa jeex ñu mën a am les moyens de poursuivre hmm. donc la lutte si tant est que effectivement autorités yi saafaruñu li ñuy wax bu fekkente ne ministre bi euh, def na li nga xamante moom la wax ci euh, communiqué bi maanaam accord yi nga xamante ne xaatimoon nañ ko te mu jàpp ne dem na ba amal euh, gouvernement bu Sénégal wala askanu Sénégal deux cent cinquante millions de francs CFA dafa retourner en arrière ci accord yooyu qu'est-ce qui va se passer xam nga xam nga foofu noonu dafa am déjà ñun luñ ñu a jaaxal parce que ñun accord yi ñu signé ñun syndicat d'enseignants yi ak nguur gi ñoom seen bopp dañu waxoon cent cent dix milliards donc suñu tëbee tëb rek ñuy wax deux cent cinquante milliards il faut d'abord ñu expliquer ñu cent quarante milliards yi fan la dugg il faut ñu expliquer ñu d'abord cent quarante milliards yooyu ñuy wax fan la dugg loolu mooy benn deuxièmement hmm. dañu seetlu ni jàngalekat yi saa suñu xeexee bay négocier gouvernement bi ba mu am loo xam dañ leen ko war a yokkal dañuy yokkal ñëpp mais suñu génnee ci loolu dañuy gis ni ñeneen dañuy xeex ñu yokkal leen te duñu yokkal jàngalekat yi ñun li taxoon ñuy xeex ba négocier ak gouvernement bi ba dem ci accord yu ñu signé daaw moo doon dañu seetlu woon ni ci système de rémunération bi dañu yamalewul woon de sorte que da doon gis ci fonction publique bi ay liggéeykat yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk profil mais ñenn ñi mën a fay seen yeneen moroom yi ñaari yoon wala ñetti yoon wala ñeenti yoon ñu ni nag loolu dañ ko war a corriger ñu yamale mais moo tax bi ñu demee ba signé ay accord yoo xam ni dafa doon revaloriser traitement jàngalekat yi ñun dañ ni woon ñoo ngi ci yoon bu baax bi doonte li ñu yokk ci payoor yi permettrul ñu gome carrément iniquité bi nga xam ne moom amoon ci système de rémunération mais on était sur la bon voie mais gouvernement bi lan la def dafa jóge foofu rek ña nga xam ni ñii ñooñu déjà amoon nañu payoor yoo xam ni même si ñoo bokk profil payoor yooyu dafa ëppoon lu jéggi dayo suñu ay yos ñu yokkalaat leen de sorte que on est revenu à la case départ fa ñu tolloon bay ñaxtu daanaka foofu la ñu tollaat donc bio loolu nag dafa nekk loo xam ne lii en réalité gouvernement boo xam ne da bëgg a régler problème mais doo def noonu parce que yow soo considéré que kat dafa am ay disparité yoo xam ne dara justifie que sooy hmm. corriger hmm. da ngay corriger pour ñi nga xam ne ñi ñooñu la ñu léser mais mënoo corriger ba pare maintenant ña nga ña nga xam ni kenn léser wu leen nga yokkalaat leen encore ba écart yi amoon écart yooyu maintenir d'accord bokk na tamit euh, ci li nga xamante ne euh, xëy na Euh, bokk na ci seen xeex yi mooy ñi nga xamante ne maanaam l'âge euh, jëm ci wàllum retraite ñu repousser ko ngeen bëgg exactement est-ce que vous pensez que loolu mun na nekk. Euh, jamono ji xam nga le combat pour ñu relever l'âge de la retraite c'est un combat qui est plus porté par les centrales syndicales parce que xam nga ñun en fait dañu nekk ay syndicats de branche or cette question la c'est une question boo xam ne dafa transversale. bien sûr ñëpp ñuy liggéey ci administration bi loolu daf leen concerner. loolu mooy expliquer mu nekk question boo xam ni centrale yi ci boppam ñoom ñoo koy gën a porter que organisation maintenant ñun am na lu ñu seetlu am na yenn secteur de l'administration où effectivement nguur gi may na leen cette possibilité ñu dem ba 65 ans te xam nga yooyu moom soo ko xasee ba def rek yow yaa tijji yow sa bopp li tubaab di wax la boîte de Pandore oui partir de ce moment mais légitimement ñeneen ñi nga xam ne dañu nekk ci yeneen secteur mën nañ ci engouffré wu pour laaj donc exactement. d'accord donc la ba tey ci euh, laaj yi nga xamante ne moom moo ñeel wàllum njàng bi ak euh, njàngale bi tey jii euh, Ndongo Sarr est-ce que waa CUSEMS e est-ce que waa SAEMS e bokkoon nañu ci waxtaan yi nga xamante ne sumboon nañu ko laataa ñuy ibi maanaam conseil interministériel bi nga xamante ne defoon nañu ko si oui est-ce que li ngeen di grève ni jotoon ngeen ci waxtaan wala dafa mel ni da ngeen ba mu ne continuer jot ngeen di soog a jóg. xam nga loolu ci boppam. moo lay wan ni en fait problème bi ñu ñuy jiite xam nga at mu nekk dañ doon def ci vacances yi mu am lu ñuy wax un séminaire de rentrée boo xam ne tous les acteurs du système dañ doon tase pour waxtaane njàng meeg jàngale bi xam lu ciy sooxe ñu jéem a xool nan la ñuy anticiper. mais loolu defoo lañ ko ren séminaire de rentrée ba fi may wax yow nii amul. mais def ngeen conseil interministériel. non conseil interministériel. est-ce que du moom moo remplace séminaire bi. non conseil interministériel bi en fait c'était beaucoup plus de la communication qu'autre chose. c'est-à-dire. c'est-à-dire que ñi ko wootee woon dañu bëggoon juste donner l'impression wane ni kat xëy na ñoo ngi taxaw ci mbir mi ci mbiru njàng meeg njàngale mi ci réew mi. pourtant mais à la vérité. am na douze mesures wala quatorze yoo xamante ne ministre premier ministre boppam génnee na ko mais xam nga dama ni la ñun ñi xam nga syndicat bu mel na FUSAC syndicat bu mel na SAEMS ay ministre de la république ministre conseiller ñuy xelal njiitum réew mi ci wàllu communication hmm. ñoom ñëpp kenn assisté wul ci séminaire boobu donc séminaire boobu dafa nekk un séminaire boo xam ne bii dafa exclusif et loolu lu muy wane mooy lan mooy que dañu nekkoon ci communication beaucoup plus que ñu nekk dans une dynamique de poser les problèmes du système pour mën a jël décision. Donc, décision yooyu ngay wax demul woon euh, ci conseil interministériel bi. ñu parce que. est-ce que vous avez été appelé. non dañu convoqué. mais bi ñu convoqué ni ñu mbir mi suba la ñu toog ba mu yàgg le même jour bi ñu jotee convocation bi ñu ni noonu non non reporté nañ ko ba lundi bi ñu naan suba la ajuma la woon ñu ni reporté nañ ko ba lundi ñun ñu jàpp ni reporté nañ ko ba ñu toog. ba vendredi vingt trois heures trente passé na. oui soog a wax ni kat comment dirais-je encore dañuy finalement dañuy mujj maintenir euh, conseil interministériel donc ñëpp ñi nga xam ni dañu teeloon a tëdd ils n'ont pas eu conseil interministériel bi noonu la demee et xamal lu toll na conseil interministériel ci secteur bu toll na secteur éducation. Hmm. moi je crois que war waruñu ko woon convoquer à la hâte noonu ñu koy def waroon nañ jël toutes les dispositions. mais loolu day wane ni ñuy gérer le système. d'accord et loolu en réalité jëmul kër. nangu sax naka nga gisee système éducatif bu Sénégal. waaw mais système éducatif bi yaakaar naa dafa am expression boo xam ni moom mooy résumé tey fi tey ni mu ni mu mel mooy li tubaab di wax un grand corps malade gis nga dafa mel na su doon nit la foo lamb ci nit ki. dafay metti day metti bopp bi day metti tànk yi day metti biir bi day metti fépp ay metti mais garab bi lan la. mais garab bi moom mooy que aujourd'hui la question des décisionnaires. oui il faut que ñu régler ko. la formation surtout la formation des chargés de cours am na ñenn ci ñoom ñoo xam ni convoqué nañ leen en regroupement mais soo xoolee. mais ñu tuuti lañu par rapport ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk di xaar. d'accord ñu jeexale pour que ñu former leen. Hmm. donc loolu dafa nekk loo xam ni lenteur administrative yi. Hmm. c'est des questions yoo xam ni il faudrait que ñu régler ko la question des infrastructures la question du déficit. d'enseignants hmm. et je devrais dire d'ailleurs déficit yëpp parce que école bi lépp fi manqué. et moo tax su dee dañuy wax très souvent naan budget bi c'est le plus grand budget et cetera nit ñi dañuy jaaxle. parce que mënoo am le plus grand budget ba pare am école boo xam ni lépp fa manqué. loolu dafa nekk loo xam ne lu yéeme. d' accord macha allah kaddu yi nga xamante ne moom la daal di yëkkati moom euh, Ndongo Sarr ñoo fàttali moom mooy euh, secrétaire général euh, bu CUSEMS e dégg ngeen ko nag li nga xam moom mooy jëm ci taxawaay bi nga xamante ne CUSEMS e nar na ko am jëm ci njàng bi ak njàngale bi mu nekkoon mbette ñu daal di koy dalal moom Ndongo Sarr mbokk yi 12 minutes chrono ëllëg ak ba ngeen doon xaar day yegsi na rajo leeral rajo conducteur yi rajo taximaan yi rajo